ba may perte roi des arènes boo xoolee combat boobu mun nga ko teg bu la neexee. Mhm. nga xoolaat Balla Gaye bii du benn. c'est possible. lan moo leen utile. xool ko yow xam nit nga xam nga kuy Balla Gaye boo tegee combat bi di nga gis Balla Gaye nu mel ak bii nu mel ça fait deux wute nañu. Mhm. c'est différent aussi. mooy bi ngay bëreeg waa ji. àndaloo tu n'étais pas 100% prêt. en tout cas jafe na la la safar la wute na. lan ngay wax waa Géejawaay. waaw li may wax waa Géejawaay. géejawaay xam nañ kuy seen mbër xam nañ kuy Balla Gaye numéro 2. respecté naa leen say supporters rawatina chinois yi nga xamante ñoo nekk diaspora bi donc xam nañ may kan ndax bis du ma ko foowee duma ko caaxaane samay encardement duñ ko foowee duñ ko caaxaane lépp lu war ci mbër mbër war koo def da koy def tey ba làmb sosoo ba léegi nee nañu quatre avance mu fee am dëgg la ba làmb sosoo ba léegi mu soo gis mbër boo xamante ne day génn espèce euh, extérieur di préparer combat ci anam yu mel ni moyen moo koy def ak bëgg li ngay def ak li nga xamante ne buñ la fayee nga war koo defaat ci sa bopp kon loolu yàlla suturaal na ma dimbal na ma mag yenn mbër yi aussi tamit ay mbër lañu waaye wuute nañu. Euh, bala ñu ñu gis nga dem France dellu si indi masse corporelle.

boo demee dañuy xool sa adversaire bi nga xamante ne moom ngay bëre nu mu mel ak ñu mu méngoo ak ñoo nga war a liggéey kon yow da ngaa vidéo Bombardier non vidéo parce que ñooñu xam nañu làmb IMSES sama papa jaar na fa mhm. suma papa Mbaye Gueye jaar na fa Moustapha mhm. Gueye jaar na fa mhm. ñi fa jaar bëri na mais kon ay spécialistes ñi nga xamante ne dañuy xool mbër bi nga xamante ne moom nga war a bëri ñu liggéey ci loolu donc ci loolu la ñu liggéey nekkul ponkal wala yaram bu bëri wala nangam non non liggéey